yéen a ngi teewlu info 221 des ak ba tey rek ci xibaar yi wéy ak yéen rek wax ci mbirum président de la république Macky Sall nag jot na vadrouiller ak juillet waaye tamit ci euh, ay lu jëm ci géej ci réew waaye tamit géegee ak gaar gaar loolu nañ ko daal di sudee dut goo xamante ni euh, jot na jëm ci enchantement waaye itam transparence transparent que le visage bi ñu gis euh, ci mbedd mi wute lool ak jamono jile capital bu capital boo xamante ne certainement ñu bëri ci biir réew mi rawatina si ñi nga xamante ne nañ ko ci wàllum économie prospère affaire jëm rek ci effet yi nga xamante ni ah, sarti nañ ko ci bëccëg yi nga xamante ne moo mujj ci ville sainte bi di Touba Touba boobee nga xamante ne sax jot nañ fa retrouver une bonne partie population maanaam lu xaaju lu toll si juróom benn million ci ay nit nag ñoo demoon niki tey jii ca niki màggal bi waaye nag nemmeeku nañ ci ñi nga xamante ne ay woy politique lañ rawatina képp ñi nga xamante ne dañoo jot ak déclarer seen candidature waaye tamit armée mexicaine loolee nag nekk ab juin bu ville de Dakar nag doonoon bërëb boo xamante ne amatul woon kenn loolee nag wane ne daal Touba doon na jamono ji bërëb boo xamante ne nag nemmeeku nañ ko nit ñi nañ fay ñëwee tax na nag ñu àddu ci wàllum économie ba nga xamante ne Touba mi ngi koy jural askanu Sénégal expulsion ak armée mexicaine ministre ministre yi waaye tamit ñu ngi waajal lu jëm ci seeni i valise loolee nag di campagne koo xamante ne rek fas yi nañ ci décider chef tant pis wala nag jeunes yi nga xamante ne bëgg nañu daal di changer nag waaye itam lu jëm ci wàllum loo xamante ne nag àdduna ci kàddu yi nag mooy Pape Alé Niang moo ko daal di yëkkati gis-gisam ci jëm ci màggal bi jafe-jafe yi ci réew mi président Macky Sall waaye tamit euh, àjjuma bi nga xamante ne rek am na ci ab réaction bu gouvernement waaye itam lépp loo xamante ne ab mbir la loo xamante ne dafa important bu sérieux loole nag gis-gisam ci màggal bi na mu demee Pape Alé Niang moo daal di yëkkati yi la kàddu jëmale ko nag ci nguur gi gis-gisam ak doxalin rawatina woy politique yi nga xamante ne jamono ji ngi doon jongante ngir sàkku ñaan ah, ci xalif général des Mourides ngir rek yàlla may la ndam ci jongante falam njiitum réew bi nga xamante ni fas yéene nañ ko amal 2000